noppère dañ ngay wax ñii seetaan. waaw jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Jalla Xaadimu Mustafa Karam Fall ngi sant ñi fi teew yëpp rawatina samay supporter ñu bàyyi seen lépp ba heure bii nii barke sëñ Bamba aw ma seen fay quoi barke Bamba lii rek dafa dafa dafa dafa doy barke Bamba di gërëm suñu grand jour technique bu baax a baax di wax rek mu ne ancien lutteur la ay xale lañ si làmb bu ñëwee pour jàppale dañuy kontal di ko gën a ñaax rek mu gën ñu jàppale ndaxte ay saa bi ñoom ñoo fi ne ñoom ñoo tax ñu war ñun ñu mën a am jom si làmb ji ak sëñ Bamba di gërëm ñëpp tamit ne sama adversaire xam naa empêchement moo ko téye rek na incha allah la set incha allah dana takk ngeen mu ñëw bëri incha allah. mbër nekk xale boo xamante ne nii sa nattangoo la sa morom la sa diggante ak moom nekk combat boo xamante ne làmb da koo yaakaar làmb da koo soxla s'il te diggante moom nekk làmb joo xam làmb préparation ak Tapha Mbeur naka la ko demee. waaw euh, comme rek kon toujours lu ñuy préparer suñuy combat rek bii moom dafa rawat ndaxte bii Ndakaaru moo ñu sas. mu nekk xale ma nekk xale gën ko doon xale dafa nekk xale man xale la gën ko doon xale te incha bare bëre xale mooy feeñ moom mun bokk ci mbër yi nga xamante ne bu arbitre sifflé day dox seen kaw adversaire yaag moom fi ngeen war a bëree yaag dafa mbër bu arbitre sifflé doxee sa kaw déggoo ma xanaa dama ne moom xale la man xale laa gën ko doon xale bu la seet naa incha allah bëre xale mooy feeñ bëri xale day gaaw day am xeex day sax loolu moo tax moo la bis ba bëri xale mooy feeñ kon ñu jox gars yi rendez-vous ci diggante bi des na yeneen incha allah kontaan nañ ci yéen ñëpp gars yi jaajëfal nañ leen di leen jox dig daje wala aada waaw di sant ñu si jàpp ndaxte am na ñoo xam ne ne man du leen bàyyi ginnaaw mukk sama staff du ma limee damay juum adama baax na di gërëm nooree ni Baye Fall di bu baax a baax Paco Jackson maa koy sant di na gën a jàpp grand taala ñoo ngi koy sant digg gërëm di woo Fass Colobane Gueule Tapée képp kuy autorité ñoo lay woo di woo grand bi di ko nee mu sas ko ñaari bologu billet zo technique ñaari bologu billet la bëgg mu ñëw Fass si kàttan suñu borom di wax gars yi non la violence la mu jaaw incha allah joru xale la dañ def yëfu xale daan ko direeku naak ba bi feetu victoire jaajëf gars yi bëgg nañ leen